FM rajo Futur Média benn waxtu di une xibaaru digg bëccëg gi salaamaaleykum. la ca gën fës bokk na ci woppi coronavirus yi ak ni mu tëddee ci réewum senegal ñi fi faatu ci mbas mi ba mu duggee ci senegal ak léegi lim ba romb na juróom-benni téeméer ma nga ci juróom-benni téeméer yu tekk benn doonte looleet am na seetlu nañu ne matuwaay yi ñu santaane ngir moytu lu lawal wopp ji. Euh, di mesure barrières yi doon na lool ñu ngi koy sàggane ci réew mi danañu dem ci université bu Ndakaaru xool yëf yi ak ni mu fa tëddee demit ca Louga ak ca diwaanu Kees layo bi ñeel euh, mbiri Iba Thiam ndeem si yàlla euh, la ca tribunal wax xam nañu ko tey ji ci suba la dogal ba daanu juróom-benn weeri kaso la ñu tëj daam amaar ak ña mu bokkal tuuma yi yeneen juróom-benn weeri kaso yu borom dul tëdd moom la ñu daan policier bii di Lamine Diédhiou nee nañu it njaboot ak Iba ña ñuy tuumal nañu leen dàmpe lu toll ci juróom fukki million ci suñu ay koppar déggoo di accord de pêche gi nga xam ne Sénégal ak Union européenne waa GAIPES fas yéene yoon gannaaw kàddu yi nga ne ki fi ministre de la pêche di Ali yëkkati na ko des na dégg ci xibaaru digg vice président bu xibaaru digg bëccëg gi daañu defawu reportage boo xam ne dañ koy jëmee ci bant bi di Djibouti gis nañu ne lu ñàkk ci réew mi la jamono ji naka noonu it seetu ña cay liggéey nekk ci jafe-jafe ngir mën koo am ndax lu bari la leen di gàllankoor dañ cey gis a kës néew njëgg mënee su ko laal loolee mbokk yi mooy taxañu xabaar yi buñ ko tàqanee ba noppi ci la ñuy dalal Georges Déthié Diop mu faram fàcceel ñu xibaar yi bi ci réew yi Cheikh Ahmed Tidiane Diagne moo koy feelu jëmee ci wàllu tàggat ci kanam tuuti lay doon buñ ca noppee danaa leen jukkil as lëf ci yi xëy di génn bés bu nekk ñu jeexale xibaaru digg bëccëg gi ak gis-gis tey jii liñ ciy waxtaanee mi ngi jëm ci wàllu tàggat yaram jëmit ci présidence bu euh, confédération africaine de football weeru mars la ñuy amal élection yi ngir seet kuy jiitee CAF euh, lu aju ci pal googeek lamu lambo moom la ñuy waxtaanee ak yéen ci gis-gis ci njeextal xabaar yi ci rajo Futur Média Abdoulaye Diop moo nekk ci machine bi. ci kàddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Media ni ñu ko junjëwoon ci bopp bi rek la ñuy duggi ak yéen ci yàkkali gi dooree xibaaru digg bëccëg ak mbiru yoon lu ñeel la yob ndem si yàlla Hiba Thiam ñem ñu ci daan tuumal gannaaw ba ñu taxawee ca kanamu yoon keroog tey jii la yoon wax lan la dogal ci seeni mbir dogal ba mi ngi jëm ci juróom benni weeri kaso yoo xamante ne ji daan nañu ko ñoom daam amaar ak ñi ñuy toppee yëf yooyee ñu jàpp ne lañ leen di tuumal ba tax ñu daan leen ko bokk na ci yore drogue ak di ko trafiqué seeni avocat ne ci moomi li mbir daañu fas yéene def appel ndax daal daan ba layo ba na mu tëddee ñoom neexu leen Pape Balla ciy leeral mbirum Iba Thiam ba tey jii jeexagul daam amar ay ñoñam ñu daal leen di daan lu tolloog juróom benn weeru kaso boole ceeg ndàmpaay goo xam ne mu ngi toll ci juróom fukki million di leen topp ci jëfandikook drogue ak ñàkk taxawu koo xamante ne dundam dafa nekkoon ci xottu gerte loolee tax na ñii di leen layal ne duñu bàyyi mbir mi mu daal di jàll maître Ciré Clédor Ly di xam ne ne nag daanaka liñ teg seen ndodd dafa bari ba tax na ñu daal di fas yéene amal ne que moom la ñu def ay test te kenn wedduwul nekk na kooku yalla dogal na nek nekatu fi dégg bon legui nak vraiment euh liñuy japp mom modi di euh avocat yi décider nañu

woowuñu ko te ñoom wut nañ seen ay pexe ba génn ci couvre bi donc bi mu amee lu ko dal ci guddi gi ñoom waroon nañ am xel génn dem yóbbu ko hôpital wala ñu woo police wala ñeneen wala sapeur yi. àtte bi pour ñun euh, jaar na yoon. ñu ngi toog nag di xaar fu mbir mi di mujjën ñun li ñu am cinquante millions yi famille bi doyloo na ko Iba Thiam nekkoon ab ndaw goo xam ne mu ngi faatu ci weeru avril gi ñu génn gannaaw ab xew-xew goo xamante ne mu ngi amoon foofee ca Almadi ba taxoon nag ñu daal di jàpp ku ci mel ne Dame Amar ak juróom benn nit ñoo xamante ne njort nañ ne seen loxo setu ci gannaaw juróom-ñeenti weer yoo xamante ne nag ñu ngi leen jàppoon ngir ñàkk taxawu nit koo xamante ne bakkanam dafa nekk ci xottu gerte ak jëfandikoo drogue moom lañ leen daal di toppee policier bi di wuyoo ci turug Lamine Diédhiou moom nag daan nañ ko juróom benn weeru kaso ak si lépp ci walum ger go xamante mom lañu ko topé ci mbir mi nga xamante danaka ba tay ji mu ngi fess bu baax baax ci lépp lu jëm ci kërug yéenekaay yi ba balle gey wax nga ko policier bobé ñu ci tuddu di Lamine Diédhiou di ko tout may guerre ko mu nangu ba tax ñu dan ko juroom ben wéri kasso yu ak ana lu ko ci mëna fekk lu ni mel laaj nañu ko ki nga modi Camara euh, commissaire divisionnaire de police le bu retraité gis na né sanction yi mëna dem sax ba ñu sumiko nous déglou ko mom commissaire Bassamba Camara ci jokkom ak Aladji Ndiogou policier mom dafa am ben loi bo xamné ci lañu tonku moy la loi 2009 18 19 mars 2009 portant statut du personnel en son article 20 qui le prévoir ay euh, affaire de discipline dafa am ouvrière wax conseil d'enquête conseil d'enquête oui bon koku duma euh, la loi bi moko prévoir la loi 2009 en son article 20 c'est loi bobu dafa prévoir lu ñuy wax un conseil d'enquête conseil d'enquête oui cinq personnes ñoo ci nek un président un rapporteur ak euh, ñetti élément yoo xamante ci ñett yi am na ci am na kenn koo xam ne moo ki nga xam ne moom la ñu daan ñoo bokk grade donc euh, bu ñu ko soumettre dossier bi après ñoom ñu le rapporteur de enquête am bu pare jox ko président président woote réunion su woote réunion bu wan conseil bi nombre de sanctions yi ñu war a jël c'est au nombre de cinq radiation d'avance tableau d'avancement abaissement d'échelon rétrogradation exclusion temporaire euh, radiation des cadres sans suspension de la réparation radiation des cadres avec suspension léegi nag bu ñu retenir benn sanction que sanction nañ ko passe au vote bu ñu ko retiré ba pare léegi dañ koy soumettre à au ministre de l'intérieur maanaam ah, ah, moom mooy autorité bi nga xam ne moo am sañ-sañu dàq wala du dàq bu ko defee nag ministre yi mën na xool bu fekkee ne yëpp yi dafa euh, nekk loo xam ne dafay maanaam ternir image de marque police bi mën na jël décision boo xam ne du bokk ak décision bi nga xam moom la ko conseil bi jël c'est-à-dire la décision de l'autorité bi nga xam ne moo am pouvoir de nomination jotul ak dara ak li nga xam ne décision bi conseil bi jël donc euh, ministre bi par exemple mën na xool ne kii li mu def baaxul euh, te bu ñu ko bàyyee ci biir euh, dana yàq police bi mën na jël sanction définitive maanaam par exemple ñu ràjjee ko wàllu yon ak yonal batay tey juróom-benn doomi aadama yu fekk ci extension mandat dépôt nañu leen démb ci alt euh, keroog ci altine ji kon ca lañ leen mandat dépôt tey jii ci lañu leen fas yéene atte ñoo leen di atte ci tribunal flagrant délit bu kees liñ leen di toppee bokk na ci turbale ordre public bi waaye it indi fitna ak di xëqante ki takk der fàttali na ñu ngi leen jàppe woon ci opération démolition boo xamante ne waa Descos doon nañu ko fa def ci seen quartier euh, di kër yi ñu fa doon daaneel loolee la ñu taxawoon ne daal ànduñu ci doon ko ñaawlu ak naqarlu ba fitna jugo tegoon ci ñu loxo ni extension que yi ñu fa doon daaneel ci extension googee seeni borom dalal nañu leen démb ca palais ba directeur de cabinet bu président de la république di Demba euh, euh, directeur de cabinet bu président de la république moo leen dalal euh, Demba Diouf ak conseil spécial bu président di talasila Sylla maire bu Kees ñoom li ñu bëgg daal moo di kër yi nga xamante ne ji kon daaneel nañ leen ñu seet nañu dampe seeni borom li nga xamante ne ji njiit réew Macky Sall na ko jëm ci ne dinañ seet fu ñu leen yóbbu ayib ñu daal di koy jëmal boole ca kit seen naataango yi nga xamante ne ji teg nañu leen loxo ñu bàyyi leen lii moo doonoon seen càkkutéef yooyu yeggee nañu ko ña leen dalaloon démb ca palais de la république diwaanu njaareem la ñu jëm foofe seetlu nañu ne ñi nga xam ne ñoo di tëgg yi maanaam bijoutier yi li ñuy amlante ak yoon bari na ñaare la leen koy jural mooy ni tey sàcc or ñëw jaay leen ko ñu dox ba fekk or ba ci seen i loxo mu jural leen jafe-jafe beneen jafe-jafe boobu ñoom it ña ngi koy dund ñoom tëgg yëfa moo di daal gis or bu ñu mën a liggéey ñaare jaam lott na ci ndax yëf di jese naa yembandi ci miim réew Babacar Diouf mu doon métier mu doy waar bëri risque lool tëgg yi nekk ci chambre de métier bu njaareem du nu nelaw bu nu tëddee ndaxte rek dañuy xalaat si ki sàkk ñu indi leen jafe-jafe ci wàllu tribunal li koy waral dafay am ñoo xam ne ni dañuy ñëw jaay leen loo xam ne ni dañ koy sàcc Mohamed Thiam moom moo jiite bijoutier yu njaareem. parce que léeg jigéen ñëw mel na mu war a mel gaaru oto mel na mu war a mel nga yaakaar ne kii moom moom la muy jaay fekk da koo sàcc. léeg-léeg nga tamit nit ñi doo la mën a xam noonu parce que léeg-léeg da ngay dem police soo demee dañ naan la ni ñu koy waxtee ci problème wu kii lañ lay wax euh, receleur lañ lay wax xam nga yooyu tamit neexut nga nekk sa place di liggéey nit ñëw jaay la mënoo xam ne kenn du identifier sa ab sàcc kenn mënu ko identifier léegi nit ki tamit bu ñëwee jaay la man góor moom ànd ko am góor mënumaa jaay or bu mu jënd mais jigéen moom bu ñëwee jaay ma or parce que jigéen moo ñëw jënd or moom moo ko war a mën a jaayaat bu ñëwee jaayal da ngay am confiance mënu ko jënd soo ko doo liggéey bari na fi bari na fi tellement problème tëgg bu am problème rek loolu mooy sa problème beneen jafe-jafe boo xam ne ni bijoutier njaaram am nañ ko jëm na ci wàllu jumtukaay yi nga xamante ni moom la nuy liggéey. tailleur bi dana mën a dem ci jënd tissu mën a ñëw liggéey. menuisier bi dana mën a dem jënd bois ñëw liggéey bu dee maçon bi dana mën a dem jënd ciment faayaram affaire ñëw mën a liggéey mais tey jii am na benn commande boo ma doon jox ci wàllu or wala na ma liggéeyal ma ko pour ma dem jënd matière première bi ñëw liggéey ko du yomb lool parce que marché noir la ñuy jënd da jënd tey bi toog xaar client bi ñëw jaay la 10 grammam keneen ñëw jaay la 15 grammam keneen ñëw jaay la 20 gramme ngay a a nga xam ne ñoom ñoo leen gën a ndaw pour ñu gën a mën a xarañ ci liggéey bi wante loolu dañoo nemmeeku ne amul benn boo xam ne ni jóge na ci ñi nga xam ne ñooy nguur gi Diourbel RFM Babacar Diouf. mooy rajo bi gën jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen feebaru coronavirus bi ci réewum Sénégal ak tolluwaay gi bilan bi ñu am tey ci wax na juróom-ñeenti doomi aadama yooyu ñàkk nañu seen bakkan loolee nag yóbbu limub ñu faatu ci coronavirus bi ba mu duggee ci Sénégal ak léegi ci juróom-benni téeméer yu teg benn euh, bilan bi euh, tey noonu la ko wane ñu amit euh, yeneen ñaari téeméeri cas ak juróom-ñett fukki corona yu yees ci réew mi yëf yi ak nañu tëddee nemmeeku nañu ci téeméeri cas ak juróom-ñeent fukk ak ñett yoo xam ne ay cas communautaire lañu ñi nekk ci loxoy docteur yi bi nee na ñi ngi toll ci ñaari téeméer ak euh, juróom fukk ak euh, juróom université Cheikh Anta Diop Ndakaaru am na kenn ku fa coronavirus bi faat lolé ci 7 septembre la woon mu di xibaar ñu ko nango ci commission ga fa sampe ngir di covid 19 ci université Cheikh Anta Diop bu commission de lutte contre covid euh, de l'université Cheikh Anta Diop bu euh, professeur Mor Ndiaye muy xam ki ci ab étudiant la woon dafa am yenen fièvre yu mu doon xam euh, professeur Mor Ndiaye né dal amna yenen ñaari coronavirus yoy ko nañu ko ci daara ja ci barab bi nga xamné

bépp koo xam ni da nga nekkoon en contact ak ñaari kaaw positif yooyu dañ leen daal di yóbbu yóbbu leen ci sunu centre d'isolement bi parce que xam nga au niveau du campus social muy si kudd dañu am ñaari pavillon yoo xam ni dañ ko jagale affaire Covid bi benn pavillon bi 33 lits la am kooku mooy pavillon isolement bi beneen pavillon bi 37 chambre la am moom mooy pavillon traitement bi donc dañu fab ñëpp ñi nga xamoon ni ñoo nekk en contact avec ñooñu ñu nekk ci cinquante la nekkoon ñu isolé leen foofu daal di def prélèvement yi bi résultat yi ñëwee dafa am ñaar ñeneen ñoo xam ne dañu positif léegi affaire bi mi ngi mi ngi ci kat ñooñu dañ leen daal di transféré ci centre de traitement bi commencé leen faj ñeneen ñi également ñi ngi xaar seen ay prélèvement am na ñoo xam ne négatif nañu ba wax nañ leen nu ñibbi ñoo xam ne ñi ngi xaar résultat bi yëf yi amee léegi ci université ba njàng mi tàmbalewaat foofu ñaata kaa ngeen enregistré. ci université waaw man déjà damay wax ci affaire gu ñi nga xam ne ñooy personnel enseignant yi PATS yi ak seen famille. foofu moom depuis bi nu mbas mi commencé ba léegi am nañ fa juróom-ñetti cas yoo xam ni na nañ leen ba boobu moom. ay jàngalekat. amoon na ñetti jàngalekat. ni si des ay personnel administratif technique si étudiants yi également amone nañ si lu mat fukki cas te dañu koy wax amna ci kenn ko xamni ndaysan dafa amone incidence rénale mujj gi dafa faatu sax parce que affaire bi aussi kon université enregistré na benn mort ben décès par étudiant koku yàgg na mat na mhm. léegi 4 mois ci ngi noonu ñu dem ci université Cheikh Anta Diop Ndakaaru la fa seetlu moo di wàccoo fa ak euh, mesure barrières yi mu di li ñu santaane ngir moytu lu lawal wopp ji jafe na ca jooju le daara mu di lool euh, étudiants yi ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax di sàkku ci kilifa yi jiite université ba ñu jël matuwaay yi war ngir askan yi wàccoo ak mesure barrières yi reportage ca UCAD Pape Mbaye Diaw. La température de votre corps est normale, veuillez passer. La température de votre corps est normale, veuillez passer. Pour entrer dans les ressources de l'université Cheikh Ante Diop, il faut systématiquement se faire prendre la température en plus du port des masques. Mais une fois à l'intérieur, aucune mesure barrière n'est respectée. Un constat qui ne laisse pas indifférent Abdou Samad Gueye. Pape mbay jaaw mooy wax noonu waaye ay tubaab lay làkk ñu jéem a seet fam ñuy waxee wolof jëm ci la xew ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mu di mesure barrière yi nga xam ne teg nañu ko fa seetlu gi daal moo di ñu bari wàccoo aw ñu ak ñoom rawatina sax ca restaurant ba eh, mu di lool étudiant ya fa ñoo ngi koy ñaw la bu baax a baax sàkku it ñi nga xamante ne ji ñoom ñooy kilifa yu université yi ñu jël ca matuwaay yi war ngir eh, ñëpp wàccoo ak geste barrière yi reportage Pape Mbaye Diaw La température de votre corps est normale, Veillez passer. ngir nga dugg ci restaurant université Cheikh Anta Diop yi nag il faut que ñu jël sa température boole ci da ngay sol masque waaye boo duggee ci biir resto yi foofu nag moom benn mesure barrière respecté wuñ ko fa Abdou Samad Gueye donne benn étudiant moom di wane njàqareem ci situation yi nga xamante ni mi ngi am ci restaurant yi. tiitaange dina ci am bu wér a wér ndax euh, boo seetloo maanaam tey respecté wuñ benn mesure barrière joxuñ respecté wuñ ko ci niñ ko mën a waxee ndax même rang yi contact yi bi ngi am amul distanciation euh, ci biir restaurant yi aussi même situation bi fa amone avant mo fa am amul distanciation en plus euh, étudiants ñom ñep ñoy ñooy ensemble ñaari étudiants yi nak di génne ci restaurant central ñom ñu ngi nakarlu situation yi nga xamanteni amna fi ci bir restaurant yi buñ sukkandikoo ci ñom même plate yi la utiliser ak même cuillère yi bon hygiène bi mom dess na carrément parce que plat yi raxas bi du set cuillère yi aussi tamit moy lolu raxas bi day dess en plus euh, étudiants yi dañuy tok côte à côte même même jumtukaay lañuy continuer di utiliser moy manam même plat même aussi fourchette et yens yenn saa sax du set. Émile Gana Gueye nekk étudiant ci faculté de droit di wóom autorité universitaire yi ñu jël seeni matuwaay ci restaurant yi bala lambaye bon xam nga ni fi université il y a beaucoup de monde dafa bëri ay nit xam nga ñun étudiant yi ñoy nek ensemble au niveau des restos tamit xam nga foofu tamit mbooloo la kon faudra que ñu garder aussi les distanciations sociales pour cela tamit tamay lancer ben appel aussi au niveau des étudiants mais aussi au niveau des du du gouvernement sud. di fàttali rek ne université Cheikh Anta diom nak coronavirus dal dina fay dug ndax fele ci école polytechnique amna yenn étudiants yo xamanteni am nañ ji di coronavirus. jóge fofé wutali diwanu Louga ci département bu Louga gis nañu ne wopp ji mang fay gën di law ci yoy la jamono ñu bari ci askani yi waneeg ci matoy yi wara jël ngir moytu lawal corona ji kilifa ya fas yéene taxaw temm ci andak askan wi xex ba deuxième vague bi baña jëm kanam loolee nag njëncey sàkku li ñu nan ku ne duggal ci sa loxo manam engagement communautaire pour Abraham Emmanuel Pouy limu nit ñi nga xam ne coronavirus jàpp na leen nag muy gën du yokk bés bu nekk ci département bu Louga ci waxtu boobu nag ñu seetlu ne am na ab bàyyeeku jëm ci wàllub askan wi waaye engagement communautaire boobu dafa mel ni amatul loolu tax ba préfet bu département de Louga di ko ñaawlu Mariama Traoré. lu xew au niveau national moo fi xew gis nañu daal par rapport à la communauté engagement bi tamit dafa wàññeeku bu baax baax waaye ñu tàyyi encore remobiliser waat xoolaat taxawaay ci nii ñu amal ay activités yu bëri ngir sensibiliser askan wi. déjà yi tamit dem visites pour xool dispositif yi naka la tëddee ñu tamit euh, def visites à domicile ciblées loolu tam ñi mouvement de génie de famille yi tamit euh, ak bàjjenu gox yi CDG yi ñu ngi dem ci atelier mécanicien ici si ñoo xam ne dañuy dawal charrette. ngir daan coronavirus ci département bu Louga nag préfet Mariama Traoré di woo ku ne mu dugal ci loxoom. woo nit yi encore vraiment pour ñu xoolaa taxawaay su sumbaat seen loxo si xeex bi parce que xeex bi xeexu ñëpp la ñu ngi si woo ñëpp ñu ñëw si. ñu jàpp si ba ñu mun a génnee mbas bi suñu dëkk bi. ak ñaareelu vague bi nag xayma nit ñi nga xam ne ñoo am coronavirus ci département bi nag dafa triplé soo ko comparé ak vague bu njëkk bi mu nekkoon Abraham Paul Puy Louga rajo Futur Media. bàyyi ko Louga wutali diwaanu Kees ak gouverneur ba fa jël dogalub ñu wéyal état d'urgence sanitaire ba euh, solo masque wi santaane nañu ko nee nañu it euh, duñu nangu kenn di ci dindi lu toll ne lii dee ci we marché central bu Kees bokk na ci barab yi nga xamante ne ji des fay amali sensibilisation maanaam di askan wi ci njariñul ñuy masqué wu ak it di respecté gestes barrières yi dogal ba ñu jël bokk na ci marché centrale ba 6 heures ci ngoon ca la koy tëj jaaykat ya fa di di ko rafetlu waaye nag euh, bëgg nañu ci ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ñu xoolaat bu baax a baax waxtu wi ñu tëj marché ndax 6 heures ci ngoon moom ñu tëj ko marché dafay teel reportage ca Kees Cheikh Anta ñu gis ni mbas mi fii ci diwaanu cees mi ngi gën di jéggi dayoo loolee tax na kilifa yi ngànk dëkk bi gouverneur préfet ànd ci ak maire yi ak waa service d'hygiène ñëw ci marché bi doon ko seet seetal te ñu gën a ñaax ci ñuy ñëw ci marché bi feebar bi di coronavirus adjudant Daouda Touré mon chef brigade d'hygiène bu Thiès. vague bi fa xawa tar ci département bu ka cas communautaire yi mi ngi aussi mi ngi gën a yokk xool yi nga xamné nit ñi dañ fay bolé di fa lu ci melni marché yi ciblé population bi waxtaan ak ñom ci walu chat gi ak port de masque bi manam, mesure barrière ñu respecté ko ci lolu yit euh, ñi ngi ci and euh, ak gouverneur de la région bu ak préfet bi monsieur Moussa Diagne. jaaykat yi ak kuréel rafetlu mbir mi waaye nag ñi ngi sàkku nag ci gouverneur bi mu xoolaat bu baax heure yi nga xamante ni dañ koy tëj marché bi ndaxte metti na lool ci ñoom Thierno Cissé di délégué général marché central bu Thiès. vraiment matuwaay bi mu fi am vraiment rafet na lool. comme li kilifa yi diglee ñuy ñëw ci marché yi di takk port de masque. respecter mesures barrières yi aussi vraiment ñu ngi leen koy ci ñaax bu baax gis nañu commerçant yi ñu respecté arrêté yi nga xam ne teg nañ ko ak couvre-feu préfet yi ñoom ñëpp tëj marché yi jaaykat yi nekk fii ci marché central bu Thiès ñi ngi sàkku nag ci gouverneur tawat yi nga xamante ni moom la ñu ko àggee mu taxawu leen ci ngir marché bi jaaykat yi di mën a jaay ba juróom-ñaari waxtoog lu teg ci ngoon ngir ñu mën a am lu ñu yóbbu seeni kër RFM Thiès Cheikh Anta Diop Cheikh Anta Diop yéen i ngi ànd ak rajo Futur Média di fi dégloo xibaaru diggi bëccëg gi benn waxtu du une heure fekk na ñaar fukki minutes RFM askan wi ñoo ngi ko doon waxtaane ak yéen démb mu di l'armée Sénégal ba wane boppam ci diwaanu Casamance ak opération nettoyage yoo xam ne def na ko ci sud département bu Ziguinchor mission la boobu ñu ngi ko tàmbali woon ci weeru mars 2020 la mu jur bokk na ci diwaan yi di Bissine ak benn Bengelou Mandiack di barab yoo xam ne ay nit yu tegu der ñoo fa toog nag seen i ngànnaay soldat sa fuqarti nañu barab yooy ci seen i loxo fas nañu yéene nag di wane seen bopp ngir ñu xam ne daal ñoo war di doxal yoon euh, ca diwaanu euh, Ziguinchor ñu ànd fa ak Ba ne armée bi liko ko job moy fexé ba jélé samba boy yi ci ne diwan yi ngir askan wi mëna ñibi lolu xamoon nañ waye liñu xamul won moy nu dayo mbébét bi tollu mu ngi melni mbir yaangi tambay di lèr daf melni l'armée bi lim bëgg def wessu na lolé ndax ci jamono ci opération de sécurisation yi nga xamni ñong koy amal digënté bilas Sikun ak Bafata wone na ni fas nañu yéene xar seen tànk tubéy ngir delloo karangi gi ci diwan yoyé ngir nguur gi mënu fa tek tankam liko firndel moy sox yu metti nga xamni askan yaa ngi koy dégg ba ci commune bu Tupa kunda adiyan ak Kawour bolé ci roplaan bi nga xam ne ma ngay jaar ci jaww ji bokk ci opération de sécurisation yooyu lee fi mu toll nii li tax jóg l'armée bi mbir la fexe ba askan wi mën a ñibbisi diwaan yooyu waaye ñiy liggéeyal nguur gi mën faa teg seen i tànk ngir dawal programme de développement économique et social yi ne moom lañ fa na ma def ci ay xibaar yi nga xam ko si benn source armée bi bokk na ci li a tax mooy jëlee bépp position bandes armées bi nga xam ne moo ci diwaan bi te nañ ko defee ne nag moo di Bissine ak Binjaalu Manjak ci weeru décembre bi ñu génn nag l'armée bu Sénégal ak bu Guinée Bissau bees yeesalaat nañu collaboration bi nga xam ne bëgg nañ ko def li jëm ci walu opération militaire diggante ñaari réew yi ngir sétal frontière bi ndax am loolu mo fi tambali mën nañ ko njort ci suba ba légui ñu ngi jot ay xibaar yu bëri yi wëñu ne l'armée baa ngi progressé bu baax baax ci terrain bi waye loole yépp dañuy xaarandi ba ci kanam ngir xool ndax amna am ndax xibaar yi jëmono ji dessena ci mbir momé Lamine aju Futur Média démb ci télévision Futur Média ci émission Déclic gan gañu dal lon di Ali Aydar né won jamono ministre de la pêche yëkëti na fay kàddu àddu jëmee ci à licence de pêche la mu de wax mu di euh, waa GAIPES dañu doon jot 190 ci quatre vingt cent quatre vingt euros euh, ci ton ton débarqué wax à nag waa GAIPES weddi nañu ko te nag nee nañu duñ ca yem daañu ak ci la vice président pour GAIPES Adama Lam lay wuyoo ñu déglu ko di ñaawlu kàddu yi parce que xam nga moom wax du benn du ñaar ñu ngi koy wax waaye nit ki bu fekkee ne mës na doon sa kilifa dafa am gëdd boo xam ne da nga ko ko war a jox lu ëpp nag tuuru te moom li muy wax dafa ëpp cent quatre-vingt-dix euros yi muy wax ne dañ ko percevoir kenn percevoiru ko bi ñuy déterminer prix bi nga xam ne moom la ñuy jëndee dañu ne comme euh, euh, espagnol yi ñoom exporté tuñu dañuy wàcce jën bi ci biir réew mi jox ko SNCDS li tubaab di wax frais de mise en fob mooy li nga xam ne mooy li ngay fay pour ñu jël euh, euh, euh, produit bi jël cru yi chargé ko ci bateau bi nga xam ne moo ko yóbbu bitim réew loolu fayatuloo ko parce que léegi yaa ngi jaay ci biir réew mi donc ñu ne ñëpp bi ngeen di jaayee na ngeen ci dindi 190 quatre vingt euros moom la tubaab di wax frais de mise en fob ñi liggéey yëpp ci affaire jën ak affaire exportation xam nañu loolu mais loolu mooy 190 quatre euros yi donc moom dañ ko dugal ci loo xam ne ñi ko ko wax maîtriser wuñ ko te moom itam jéemul a gëstu ba xam li ñu koy wax dëgg la du dëgg dañ ko dugal ci njuumte bu metti mais comme nag moom dafa continuer rek di taxal nit ñi ci loolu li fi sës mooy ñu yóbbu ko ci yoon mbir mi leer mu wax kan moo jël cent quatre-vingt-dix euros yi ku ko fay ak kan moo ko encaissé parce que loolu mooy mooy li nga xam ne mooy leeral deru euh, euh, euh, gars yi pes ci mbir moomu ginnaaw jën yeeg géej gi ñu wax ci dénk yi seetlu nañu ne bant bii di Djibouti waaye seetu bi nga xam ne menuisier yi léeg-léeg dañ koy soxla ngir di liggéey e, gis ko jafe na daanaka ñetti weer a ngi ña koy yittewoo mënuñu koo teggi gët loole indi ak cooxe gu mat sëkk ci seenub liggéey nee nañu léeg-léeg am na ci commande yoo xam ne dañ koy jël sax ba encaissé xaalis ba waaye fa ñu mujjee mooy delloo client ba xaalisam ndax duñ gis matériel buñ ko mën a liggéeyee lan moo tax e, mënuñu gis bantub Djibouti ba seetu ya ñuy liggéey ba fi mu nekk ni ñu ne amaguñ ci takk bu wér ba xibaar yu leer loolee ñi ngi ko xam ne ci reportage boobu Nafisatou Sylla def ci diwaanu Médina

amul fii may wax ak yow ay bois rouge laay liggéey tey laa soo gestoo moo ngi sa ginnaaw ay bois rouge moom laa teg noonu ci atelier wam Ousmane di liggéey ak tuuti bant bi ko desee moom nag muy ñaawlu li liggéeyam di yàqu ndax pénurie bi le boo fi ñëwee di nga fekk ay quatre cent bras couché taxawan mais xoolal benn rek moo fi ne liggéey bi na bu baax depuis trois mois yi ma la wax ba léegi bu da ngay fay magasin affaire yooyu yëpp mi ngi ci biir koo wax la lay wax li ko bloqué nag mënu la exactement lii la mais yaakaar naa ne covid bi ci la bokk Abdoulaye lii mooma di ñu wax ni du variété bant bi rek moo manqué ci marché bi jamono ji bi moom it dafa si marché bi kenn gisatu ko jibutu moom ay at ngi nii mënuñu ko am ci Sénégal dabe maa la ñuy am bois jibutu deux traits madrier ak poutrelle defaraat lii du seetu itamit jafe nañu gis ko fi ci Dakar beneen baa ngi nii ñu wéer nii amul seetu cas de yaa ngi nii amuñu seetu fenn fenn cas de nga daan jënd à te du nekk seetu bi nga daan jënd dañ koy obligé jënd pompe noire pour ñu peintre ko ci ginnaaw pour mu mun a génnee image seetu lu soxal nag pénurie bi amul benn xibaar boo xamante dina dalal seen xel ba tax na nag secteur bi di wéy ba tey di bari ay laaj yu ñu amagul tontu. xamuñu ndax ci port bi la dédouanement bi la ou bien bant moo duggagul loolu ñëpp xamuñu ko amuñu benn réponse à xibaar bu tiis ci xibaaru digg bëccëg gi mu di làqu ko sëriñ li Mbàkke xalifa sëriñ Moodu Mamun Mbàkke Daaru Salaam wàcc na liggéey tey jii ci suba fas nañu ko yéene jëbal boromam ci ngoon gi ca Daaru Salaam Groupe Futurs Médias ci sama kàddu di ko jaaleen njaboot gi yëpp RFM bitim dalal aladi Georges Déthié Diop maa ngi lay nuyu bu baax baax Diop. maa lay fay bu baax Ndiaye. ñu dooree xibaar bi ci ak la xew ci Mali nee nañu téeméeri terroriste ak lu teg faatu nañu ci ma. l'armée bi moko ko terroriste ñu ngi leen euh, faat ci opération bi du seqoon nag France Umu Kalsum téeméeri terroriste kojoon nañu leen teg loxo ñaar fukk ci ñoom ak ay moto ak matériel de guerre ci benn opération buñ duppe woon éclipse buñ doon amal ci ñaari fan jàpp ñaar fukki fan ci weeru janvier bi ñi ko amaloon rek di armée malienne bi ak force française Barkhane ñi ko doon xamle ci benn communiqué malienne militaire français ya nag ak ñi nga xam ne ñoo di seen partenaire locaux ya ca bët gànnaar Burkina Faso ci benn zone bu ñu duppee zone trois frontières lu ci mel ni Burkina Mali Niger amaloon nañ benn opération ak njàppale éclipse ba boomoon nañ fa ñaar fukk ci yaay jihadiste ci weeru janvier bi pare nag ngir xeex jihadiste yi ca Sahel indi woon na lu toll ak juróomi junni ak téeméer ci ay soldats yoo xam ne indi woon nañ leen ci atum 2013 ca wetu armée G5 Sahel ba lu ci mel ni Mauritanie Mali Tchad Burkina Faso ak Niger opération anti jihadiste boobee nekkoon na lu juróon coow lu bari chef état major armée malienne ba nag joxe woon na ndigal ci weeru janvier bi ngir ñu amal benn l'enquête ngir xool lu waral deewu ñett jihadiste dañu téye woon na ngir yóbbu leen ca benn camp malien ONG yu bari nak ñu ngi doon laaj ngir ñu amal ay l'enquête ci benn sox boo xam ne tuumaloon nañ ko ñi di français ya ci benn village buñ ñu duppee woon Bunti waaye dëkkuwaay ca village ba nag di xamal ne ñi di français ya boom nañu lu toll ci ñaar fukki ci ay nit ci benn mariage buñ ñu doon amal ci ñetti fan ci weeru janvier bi mu nekk loo xam ne ñi di autorité française yi ak malienne yi ñoom dañoo weddi yi le tuuma ba mu set wecc ndax dañoo jàpp ne seeni avion visé wul woon lu dul jihadis ya te ca wet ga amul woon lu ci mel ni mariage wala ay soxna yu fa seen ay xale waxi noppi jàppale ni itam ni Ba Ndaw di njiital transition ba foofu ca mari mari mu nga ca Paris euh, ñu ne sax euh, alte alarba euh, tey gii njiit au France Emmanuel Macron da koy dalal wisit bobé nak am ñett ci ay bés lata sommet bu G5 Sahel bi fas am fukki fan ak juróom euh, jëm ba fukki fan ak euh, juróom ben ci wéru février gi ñu dëgmal ci N'Djamena ci Tchad dembu mom Ba Ndaw ak premier ministre Khatim nañ ab décret bi nga xamantene moy mooy comité national pour le salut du peuple ab organe wi nga xamantene militaire putschistes ñu ko taxawalon fofu ci Mali ganaw bi ñu coup d'état bu fukki fan ak qui ñett ci wéru ko out ñu wessu ci Cameroun mom gën ka tuti fanweer nit ñàkk nañ seen i bakkan ci ab l'accident euh, ab euh, bus transport ak euh, ab camion bi yoroon carburant ñoo mbëkkante ca westu dëkk ba am nag lu toll ci ñeent fukki nit yi nga xamante ne ñii dañoo gaañu ñii am ay lakk-lakk ñu yóbbu leen ca l'hôpital alarba tey gi bës bi ñu jagleel ci àdduna gi yëpp euh, ngir fàttaliku euh, ñi faatoo ca holocauste moom mooy loolee nga xamante ne waa nazi nazi yi def defoon nañ ko faat euh, lu toll ci six millions juif loole nag di ab génocide bi nga xamante ne mu ngi amoon diggante 1933 ba 1945. waxtaane mbiru coronavirus bi tolluwaay bi ci àdduna bi léegi limub cas yi feeñ ci àdduna yegg na téeméeri million yi cas il est 100 millions

ci le coronavirus bi gëna fess ci aduna modi États-Unis Inde Brésil Russie ak euh, Royaume-Uni réew Madame euh, manam dal euh, xaju coronavirus ci biir aduna gi ñom ñu ngi ci seeni dekk waxtane walu tàggat yaram ci xibaaru biti rew yi lu aju ci ku yoto jité bop kaaf ki nga xamne moy candidat bi fekk bax di Ahmed Yahya mom dafa mel dal euh, candidature amna lu ci rax. njitu federation bu Mauritanie football mom dañ koy song song jarle ko ci njabotam ay activiste nak diko ko ay crime yi nga xamantene ñu ne way juróom gu góor moko ko def fofu tole tax sax ba ñu ñu japp ne waru ta jité confédération africaine de football Ahmed Yahya nak mom di ñaawlu doxalin euh yi nga xamantene neena du soppi dara ci candidature mom sax euh, ñaax na équipe. équipe am ñu topp ñëpp ñi nga xamante ne ñoo koy song ci wàllu woowee ñu yóbbu leen ci yoon ngir ñu teg leen ay daan gannaaw communiqué bu Ahmed Yahya nag Kaaw Touré àddu na ca euh, moom nee na njiital fédération bu Mauritanie njiital fédération football bu Mauritanie jamono ji origé na ndax Euh, assumé na li nga xamantene way juroom gu goor que fa def te ñom ñu leen koy euh, tumal ñu mouvement des forces de libération africaine de Mauritanie dawlaqula ci Suède. trop euh, que monsieur Ahmed vient d'écrire day menacer papam tortionnaire euh, dina ko porter plainte xam ngeen papam mooy Abdourahmane Oulakouar. directeur de la marine nationale en Mauritanie en 1990 pendant ces années moo euh, des centaines d'officiers et sous-officiers noirs qui sont morts sous la torture qui prison ñu Inal euh, près de Nouadhibou et depuis lors les veuves les orphelins dañu bëgg justice en Mauritanie et léegi encore mu nekk candidat coow a été relancé. Donc euh, moom génnal ben lettre pour menacer tout celui qui attaquerait ou qui rappellerait le passé de son père lolu dañu c'est pas normal et ça ne passera pas mom waxuñu mom moy responsable crime papam mais c'est de l'histoire kenn mënul pour interdire les victimes d'en parler dañu wax FIFA la euh, CAF mono être candidat ou que tu deviens complice du racisme wala des crimes contre l'humanité dans ton propre pays FIFA day combattre euh, racisme dans les stades partout nous nous voulons que me démarquer cette politique de racisme en Mauritanie mais pas des sorties de menaces ci noonee la ñuy dalale Cheikh Ahmed Tidiane Diagne ànd ak moom ci xibaaru tàggat yaram yi ci xibaaru digg bëccëg ci rajo Futur Media Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Moundou Mohamed Ndiaye. dañu koy dooreeg wàllu football Ligue 1 ñaari match yu ñuy football tey jii ci ngoon. waaw moo di dañuy daal di euh, dabe ñaari équipe yi nga xam te ñoom ñooy dabe nag moo di euh, Jaraaf ak Tëngéej FC ñoom yi nga xam te ñoom ñoo teewal Sénégal ci compétition africaine yi tey jii ci ngoon nag ci bu 16 jotee Tëngéej FC féetee jamono gi waxtu ci stade Amadou bari bu way diggante jara fété ci fukket ak benen place bi ak ñi di wa Mbour eh, eh, Petite Côte Guédiawaye football club nag moom mbébétam moo di fexe ba ñëw ci Ligue jamono gi nag ci Ligue la ñuy daal di évoluer waaye li nga xam ne daal moo di seen ndorteel mën nañoo jàpp ni baax na baaxul ndax daal nañ am ñaari victoire ak ñaari défaite eh, ci kaw bu saison bi door rek léegi ñoom eh, la ñu bëgg moo di jooyante mbir yi ca ba mu gën a gaawee tey jii suba gi sax ki nga xamante ni moo di Oumar Bow di suñu ndaw toogal ñu foofu la ca diwaanu Guédiawaye daal dina toxantu foofu la ca séance d'entraînement bi nga xam ne ñu ko doon amal tey jii ci suba gi ñu déglu ko ci reportage ngi soog a génn waaye équipe bu Géejawaay FC bi nga xamante ni Ligue la nekk dugg pelouse mini stade bu Géejawaay nag daal taxawal ay groupe joueurs yu Géejawaay FC di daw ci ginnaaw bal bi ngir tàmbali seeni séance entraînement. ci ñoom am na kenn kuy wuyoo ci turu Mouhamadou Diallo. mom nak suñu xel dafa daal di dem ci mom ndax football bu rafet bu muy def. la ko mo gra ça va bien cool lépp jàmm. yaa ngi yëngal bal bi de. wa ñu yëngal nang nang rek. lek lek mu yor bal bi di doute. Je si koom Je le koom couvre mal ah lo man pas mooy boo dellu faut que tu le couvre Mais parce que il est pas dangereux. il est loin de ses bases. lek lek ñu nang ko ci moom. encore encore Pape yaatalal nga yaatal Pape. bokk na ci ñi gën a xarañ ci équipe bi. daaw dañoo ñëwoon am championnat met métti on était en haut mais coronavirus bi moo koy yàq moo tax mais ren moom nañ def tout notre possible man de de ma part je vais faire tout mon possible bi nekk ci yoon bu xaw a xajam maanaam day jukk ak i daanu ndaxte Guédiawaye FC dal dina am ñaari victoire ak ñaari défaite ci ñeenti journée coach bi nag di Aliou mbay ne tiitul dara. malgré difficulté yu ñu xaw a tout sur le plan résultat parce que résultat mitigé la té ñun mérite nañ am lu ëpp loolu. ñeelu juróomeelu journée bi Guédiawaye FC dina jàkkaarloog Duc mu nek équipe bi nga xamanteni ni mën na lool li muy def té Aliou Mbaye nangul koko ko. dafa def ñenti journée am ñaari victoire am ñaari défaite. équipe la boo xam toujours soy football ak ñom dang koy def ay métit parce que c'est une équipe athlétique. Guédiawaye FC nak di dalal xeli supporter yi té jongante bi ñu jëm seen i ak Duc. nee na dina def lépp ba am trois poñ yi. jéem a naxatee ñoom rek ba empoché trois points RFM waaye Omar Mbow. Omar Mbow ñu daal di wax ci beneen division moo di club amateur yi ñoom nag euh, dogal gi nga xamante ni seen ligue daal dina ko jël moo di danañu football kon bokk euh, ñaari yoon ci semaine gi. benn bi ci week lay daal doon ba ci des nag ci diggu semaine bi mu mel ni ki daal lu ni mel am nañu ci àndul ndax gis nañu ni arrangé wu li nga xam ne moo di équipe yi euh, ci taxawaay ci jumtukaay ak itam ci ay koppar euh, ñi nga xamante ne ñoo di président club bi nag tàmbale yëglu ci ñooñu le bokk na si ñambe Diop bi nga xamante ni moom moo di président bu renaissance sportive bu Yoff. décision bi nga xam ne moom la ligue de football amateur euh, génne pour reprogrammer le championnat maanaam ñuy football les week-ends football les mercredis mu nekk loo xam ne nii lu metti la financièrement mais aussi euh, physiquement et sur le plan organisationnel. Vraiment, les clubs, ñi nga ne sommes football mënuñu loolu mu mel dafa nekk dictat boo xam nous dañuy rek imposer Nous sommes te les ñu ñun suñu xalaat te dama yaakaar ne ñi nga nous ni football amateur bi ñuy def dara nous mel nous décision yu mel war nañu concerter ak ñun ba ñu wax nous xalaat ñu les ko def mu vraiment na trop te un appel au président de la fédération sénégalaise ministre de football pour que mu woote réunion ñu wax si loolu ndax loolu ñun du ko mën a tenir du ko mën tey du ko mën ëllëg dafa mel ni boo jëlee exemple benn équipe boo xam ne équipe bu mel ni Yoff ñu war a football lundi buñ ñu footballee lundi ba pare war a footballaat mercredi pour dem à Tamba wala ñu dem à Ziguinchor wala ñu dem à Kaffrine loolu nan la ko nit mëne nan lañ ko mën organiser donc war nañ xoolaat affaire bi bu baax wa dëgg yàlla metti na trop si ñun bu fekkee ne nag intérêt club yi ñoo fi nekk ñoom la ñuy xool nañu xoolaat décision boobu la décision boobu noonu kenn mënu ko te maa ngi profiter ci occasion bi di lancer un appel à tous les clubs ñu jóg taxaw def benn say dénoncer affaire bi ko pour que loolu ñu bañu ko dicter. ñu dem ci bitim rew waxtane football Angleterre lañu jëm Manchester United yene modi jëlat bop classement ba waaw mi ngi non ñom nak seen bebet moy fexé ba jël lu ni mel tay ji sax ci ngone lañu fasiyene kon bok football seen 20e journée ci bu 20 heures quart Manchester United mom dana ke ñi nga xamni do Sheffield United bëgg foxati place bu ñëk bi ci Manchester City ci gogol wax ci tamit Leicester fété si ñetteel place bi mom dana tassé ñi do Everton Chelsea mom mi nga xamanteni dafa dakh entraîneur di Frank Lampard ñi le wessu mom jamono gi nekk ci ay jafé jafé ci bu 18h jotee ji ci ngoon dana sek ak ñi di Wolverhampton 18h diggante Burnley ak Aston Villa lay dal di doon 19h30 euh, Brighton dana tasek ñi di Fulham ci Angleterre ñoo ngi seen euh, c'est Italie plutôt ñoom ñi ngi seen euh, coupe nationale quart de finale danañ ko yeggali niki tay 16h45 diggante Atalanta bu Bergame lay dal doon ak ñi di Lazio bu Rome 19h45 Juventus de Turin dana tas ñi di Spal démb dem nak ci bañu koy dor Inter de Milan ci derby bu doon dox ci diggante mak Milan AC Inter moko bu mujj daan ñaari bal ci ben ci

ñoo leen di may li ci yéenekaay yi Mamadou Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf ndakaaru ak kees gi ñu soloon ci kees dañuy wéy di des ca kees ga ba léegi ubbi l'observateur couvre-feu gi ñu tegoon ci ndakaaru ak ca kees gannaaw ba mu jeexee état bi dàbbal yaat na ko dañu koy wéyal ba samedi ñaar fukki fan ci weeru février atum président de la république Macky Sall moo programmé état catastrophe sanitaire ministre intérieur jërub arrêté ngir ñu wéyal couvre bi ba ca kanam Walf Quotidien nañu boole kookit ya ñu a daje Macky Sall kuraan ko source yi maanaam ñi bëgg feetu ci seen xol ay mbumbaay ki rumbaay fatwa yi ñu leen tegaloon ba léegi teggiwuñu ko journal bi nañu suñum réew di Sénégal yegg ci juróom-benn téeméeri bakkan yu rot ci réew mi ndax coronavirus bi démb rek fukk faatu nañu fi téeméeri ka coronavirus ak fanweer ak ñett yu yeesit feeñ nañu fi libération nañu gudd ñu toll li woppi coronavirus ji tëral ci réew mi boo doon xayma seenub lim ñu ngi toll ci ñetti junniy doomi aadama ak juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent la tribune nañu Macky Sall waxal ndax wax jot na heure bi romb na garaaw ci musiba ci lañu jëm nek ak coronavirus yi ñoo ngi gën di takarna ci réew mi ñi mingi fat ci réew mi lim ba ëpp na ab xifit mi ngi bëgg a askan wi sil xafar nit ñi sonn nañu nit ñi jaxaso nañu anki dina kay xamal ñu ne ci réew yi nga xamne mbass mi fa la ëppé lu mu fat ci dindu Afrique bi suñu réew di Sénégal ma nga ci déllu gannaaw ndank ndànk terewul nak jaloore ji ñu defoon ci xex Covid 19 bi ba tax mu jëlon deuxième place ci aduna bi lolé mi ngi koy ñak ndax muy Sénégal di gannar Mali Afrique du Sud ak Nigeria deuxième wag gi ñu dund ci coronavirus bi ñoo nga cee daj lu dara jarol vox populi nañu dëgg la coronavirus bi mi ngi faatu waaye am na ñeneen ñuy faatu ci réew mi ci anam yu gaaw te yéeme ni ci benn semaine rek ne meeku nañu fi juróom-benni doomi aadama yu ñàkk seen bakkan ci anam yu doy waar mu di ci ndakaaru di ca Tuuba ak ca Ñooro fu ca nekk dégg nañu fa ku faatu mbaa ñu faatu ci anam yu yéeme la si ne kay nañu kuréel gi di association de maires du Sénégal li mu ñàkk ci ay membaram ci juróomi weer yi ñu génn kenn xamul lu mu toll ne Magay Gay maire bu Màkka Yob dem na Soni Giñaan maire bu Caali Njal gi dem na Amadou Bekay Diop maire bu Ross Béthio dem na Abdou Ndaw maire bu Mbadiane dem na Idrissa Diallo maire bu Dalifort dem na maire bu Mbeela Diaw dem na Pape Diop maire bu Kokki dem na Malang Thiam maire bu Diouloulou dem na ñu dem ci journal lii quotidien fekki fa maire bu Ndar di Mansour Faye ubbil yéenekaay bi journal bi nee nañu la ñu ko santoon moom Mansour Faye mu di ceeb ak diwlin maanaam dundi gi mu fi doon séddale di aide d'urgence alimentaire gi mu wax nu mu ko doxale lu ca nekk mu wax fan la ko dugal lii quotidien nee nañu Mansour Faye def na ko ba boole ko ak i justificatifam comité suivi fonds force ma ne woon ministre développement communautaire ak équité territoriale rendre na compte ba ko ki preuve yuy firndeel ni mu doxalee aide d'urgence alimentaire gi di ndimbali nguur gi doon baaxee askan wi seeni gët xonxoon ci jamonoy mbas mi tàggat yaram ak journal record mi xëye footballu Angleterre Chelsea ak Wolverhampton la ñu yéenekaay bi nañu danañu football tey jii six ci ngoon journal bi nañu Edouard Mendy ak i gaayam di waa Chelsea ginnaaw jëluyu takkarnaase yi ñu nekkee fan yi ba tax ñu dàqoon seenub entraîneur Frank Lampard ci matchub tey bi a jekkalaatee mu kemudi moo Manchester City do na kurpañ bu dal bu nuppi pression Manchester United ki dundul ben pression suñu lamb nenañu nañu moo di mi di amabalde mi ngi dalal xelu ay fansam bolé ko ki di leen wax luñu mëna dégg seul bu ndaw di amabalde mi ngi xamal ay fansam ci suñu lamb ne buñu tiit buñu ragal ndombal tank roi des arènes ga ca dana dem duma ko daan ko tekki ndombal tank li takal ko bopam